nuyuwaat bu baax. maa leen di fay ginnaaw bañ sant a julli bu yonent bi di sant sama ñaari waajo bu baax a baax di sant waa kon ma defal ko bonne presse maa leen di sant di leen gërëm li yombul wala li mooy wan ni yar moo am solo quoi li mooy wan ni yar moo am solo waaw ñun dañoo yar quoi maa leen di sant waa koñ bi yëpp waaw di sant waa doosi mat bi yëpp ne sama ginnaaw combat bi dinañ wax seen combat la waaw ñu gis nga jóge sa combat yow gauche nga am ci ndam ñu ne c'est la première fois doomu jàmm gën dem ci grand combat te ki ngay jàkkaar lool bii mooy deuxième fois muy dem ci grand combat fëggala bu ngor mu bëre première com grand combat ñàkk deuxième grand combat mu ne erreur bi ma defoon du ma nanguwaat mu dal ma ba tax na mu ne doomu jàmm gën lépp lu mu war a def ne ko def mais jour ji arbitre wàcce loxo moo ko fi bàyyee ah, sant yàlla rek bilaay laa ma ñu moom lu ñu siy wax du bëri dañuy wax tuuti def lu bëri parce que Seydina Mohamed grand combat yow la bilaay wallaay grand combat petit combat laa yemale. abdoulaye di sant sama waa Igri ñëpp di sant sama président gis nga xam ne mooy Feugeula bu Ngor dafa génn Ngor génn Sénégal dem fi nga xam ne mooy Maroc entraîné fa ñu gis seen face to face yi ku seetaan ñu ne Feugeula bu ngoor moo gën a nekk ci état doomu jàmm gën est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel ndax sa adversaire combat bi da koo jaral ba mu génn entraîné ji ñëwaat Sénégal. non est-ce que nekkul dama kaa diital kii sama avance ne ko yomb na. billaay barki alxuraanu kër dama xajam billaay sama mas da ko yombul boo ko lekkee foog nga tukki billaay si kàttan yàlla sama jaar ay morom rek fala mais est-ce que bi nga jàkkaarloo liir nga ko ndax boo jëlee adversaire di nga xool ci fi mu fort ak fi mu am ay faiblesse est-ce que Feugeula bu Ngor liir nga ko vu que moom ak adversaire yi nga daan am bokkuñu. non benn la benn la billaahi dafa mën a xeex loolu laa am dañ xeex ba naaw dafa mën a xeex daa mën a bëre. daa mën a xeex mën a bëre lu muy wuti lu muy wuti maa ko lu mu bëgg maa ko daax waaw dañu yàlla may talag fekke rek mais kii fëggale bu ngor mu ne dafa lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi seen jour combat ngeen jàkkaarlool xeex deux minutes yi saf ndax moom boxeur la dégg na ne tamit yow it nga nee na est-ce que am nga fitu jàkkaarloog moom xeex ak moom benn xeex bu dëgër doo ko bëree. ñaata minute la vingt vingt minutes la bu xeex quinze minutes man du ma arrière pour boo six combats la am ku ko seetal matul deux minutes boo ko calculé matul sax deux minutes man bi arrière xar bi ne par ma attaque ko si kàttanu yàlla bu yéexee yéen ay journaliste ngeen préparé leen bu baax a baax ku xef doo gis jël ma koy vite maa ngi borom vite bilaay yàlla mooy yàlla may ko bilaay mu ne li foog dina la nax ndax day dégg da ngay génn di dem ay compétition mais dafa bëgg nga xam ne arène nationale ak lutte simple du ñu benn te yow mbëru lutte simple nga doo mbëru dóorante ci arène bi léegi nag nee na bu boobaa mu nekk la 31 janvier si la lay wane yaa ngi doog a am combat te yow adversaire yi nga daan jàkkaarloo yëpp matuñoo am adversaire yaa ngi doog a am combat muy Feugeula bu Ngor. non ay ndaanaan rek laa bëre. billaay wallaay taalaay. xale bu fere laa maa ngi doon arène nationale. ku ma xajalul loo dugg. man doomu mbër laa. ba Seydina Mohamed am papa yëpp doon bëre. am na ay daw làq yu nekk jàmm gan yu koy fen nag. yu koy fen quoi. waaw toujours waaw nañu téye seen tànk rek seen koñ. mooy ñëw fii waaw. ñoom ay góor jigéen lan combat bi dañu kaa soxla te li ñu si war dafa bëri te damay kaw nag di ko dóor nag ñun ay kàtt kat lañ ay mbayaar kat lañ waa dóor si mata yaa ngi dégg maa ngi mbëru mbayaar maa waaw bu ñu déggee bu ñu déggee ne dafa am ay dawlaak yu nekk si ginnaaw muy ay góor jigéen lan dañ gis li nga xam ne li nga xam mooy 100 pour cent bi 100 pour cent bi tey ñu gis fi ñëpp loolu yàlla leeral ñu loolu bu baax non maa ngi sant 100 pour cent jàmm nga ñëpp maa leen sant barke Seydina na ñoom ñëpp gis naa leen ñëpp gis naa leen amul ku ma gisul barke alxuraanu karim ñu ñu ko ba kan Abdou Ndiaye ñoo ñëw ba fii barke alxuraanu karim jaamugal lañ dëkk ñun jaamugal lañ dëkk ay Portugal lan dañuy nekk fu ñu nekk rek mbëru jaamugal yëpp sant naa leen sant naa leen gërëm naa leen di leen woo si ñoom ñëpp gis naa leen si bonne presse ñoom ñëpp nañ ñëwaat doole laan ma ma jaamu gan gi dafa ragal si kàddu yàlla mais doomu jaamu gën a am na loo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel ndax fëgg la mu bokk na ci mbër yi xam ne moo fi ginnaaw ndax ministre yeeg député yi ñëpp ci ginnaaw ba tax mbër bu ci jël avance premier esprit bi ngay doxee mooy yaa ko gën a jege arène nationale mais est-ce que say supporters dinañ am fu ñu toog ndax li mu jënd ci ay bolok amul benn morom bu ko mën a jënd ci laa boo tourné gis ku mel ni sa grand mbay ngay amul lu mu deful si làmb kooku nooy tiitee la tourné gisaan su ñebe nooy tiitee amul ndaase waxi noppi Mamadou Lamine noppi kooku du tiit jàmm nga man amul tiit waa bañ lal bi waa bañ lal bi bu leen gisee waaw ku si mel ni moom mii nii fii fii kenn ku ne lu ragal man amul ragal ñaareel du ñu gis ne li nga xam ne mooy am na mbër yu fa génn ne mooy Idriss bi ma bëree pression de mukk si àdduna dañoo entraîné ba am ndam yàlla na yokk yàlla na ñoom dañoo entraîné ba am ndam man tam damaa entraîné bëgg ndam quoi. yàlla na ma si kàttanu yàlla. lan ngay wax fëgala bu ngor. waaw fëgala bu ngor wax na ma wax bëriwul na pare pour lépp na dina xeex dina bëre bu dugg rek war a mu raxas barke Seydina Mohamed. Eh. ñan ngay woo ci combat bi. combat bi ñu ma siy woo bari na. li si woo waa Pacaara bu ndaw bi matagu leen si woo bu baax. matagu mat matagu mag bi moom sa jur maa leen gis ñoo nekk ñooy nekk ak bu ndaw beeg yëpp. li si woo ku si mel ni a góor maa nga siy woo billaahi ku si mel ni grand góor waaye Jordan grand Jordan maa nga siy woo si combat bi waaye ba nekk Casamance maa ngi koy woo si combat bi Mbaye Gueye Faye ñëw na jarul sax ma koy woo moom ñëw na parce que alxuraan karim bilaay maa ngi koy woo mu gën a ñëw Mbaye Gueye Faye maa ngi koy woo mu gën a ñëw di sant waa Januar bu baax a baax ku si mel ni imam ku si mel ni Abdoul Aziz ak soxnaam parce que Rasulullah waa waala waa dëgg saa waala bii waa jàmm gën tamit waa matagi tandem si waa jàmm gën daal waa ndar ku si mel ni Lamine Sera sama grand yaa ngi si doon jàpp yaa ngi doon jàpp bu baax a baax yaa doon jàpp baax dañoo bëgg nga gën a jàpp ku si mel ni grand gise sama grand bu baax a ngi noonu gise Seras Lamine Seras maa ngi koy woo moom kooku moom ñoo maa ngi koy gën a woo di sant waa ci la bu baax a baax di sant sama mbokk wala wala yi sëñ Cheikh Mbacke maa ngay sant bu baax billaahi ak sëñ Mbacke barke Rasulullah sant nga ñëpp daal non looy wax presse bi nga xam ne dañoo bàyyi seen ñëpp tey ñëw. non presse maa leen sant di leen gërëm lii yombul waaw di sant ku si mel ni Lay Ndiaye ak Sall business maa ngay sant. barke Rasulaay Fat Bintou Ndiaye monsieur le maire maa ngay wax si combat bi. mais doomu jàmm am na loo xam ne il wax si parce bu ñu nee bi am na buy jógee jàmm gën naan violence du ñàkk te ku ne xam ne ñaawte fépp la am. waaye jàmm gën ñi fi dëkk duñu def mais defkat yi dañuy wàlli siyaan mu tax toujours jàmm gën la ñuy wax tey lan ngay ñaax say supporters. waaw sama borom ginaar yi maa ngi woo. wax ci violence bi non violence moom jàmm gën koo xam xam ni violence bëriwul ku si mel ne maa ngi woo Zamber sama njaago bu ndaw bi sama njaago bu ndaw bi oh, oh, oh, oh. sama njaago la laaj. fii dañ fay fal ñi nga xam ne ñaar ñi nga xam ñoom ñooy ambassadeur non muy Baba Diakhal. ak ki nga xam mooy Liss Ndiago tey ngay dem la ko waxee mu ne lan ngay wax ki nga xam ne mooy xale yi yan kàddu nga leen di. na ma Liss ak Baba Jaxal yedd nañ ma Liss ak Baba Jaxal xam nga ñoom lañ teg foofu noonu ci doomu a ñoom yedd nañ bu yàgg xanaa dañuy damay gisante ak ñoom chaque jour chaque jour damay gisante ak ñoom ñoom yedd nañ ma bu yàgg waaw fi violence amu fi barki alxuraanu karim fii non violence bu ñu indee yar ñaan la ñoom si yar. waaw luñ fi indi rek dinañ ko fi luñ indi leneen. voilà ko fi. barke alxuraan karim war nañ ko daal bilaay sant nañ la gërëm nañ la waaw di sant sama papa bu baax a baax sama papa ma koy sant di sant sama yaay bu baax barke alxuraan karim bilaay man jot na jot na ko waa jot na ma nekk champion bu mag a mag sama yaay dafa sonn di sant sama kër si Thomas di sant capitaine sama kër si Thomas top 5 bu baax di sant di sant sama entraîneur yi waa jàmm nga si combat ku si mel ni Modou Fall Grand Lay Babacar ñëpp maa leen di woo si combat ku si mel ni Père Assane Jibi Ndiaye di woo Ndik Fall sama président équipe ak Laye Ngom mbëri jàmm nga woo naa ñëpp ñëpp laa woo ñëpp barke alxuraan mbëri ngay tamit maa ngi koy bu baax a baax bilaahi maa ngi seexu naa laa sas béy béy béy mbéy laa ko sas jàpp bu baax a baax barke alxuraan Modou Pouye grand bi grand Modou Pouye maa ngi koy woo si si tigay tamit maa ngi ko siy woo naa leen yéen gërëm naa leen barke alxuraan karim yéen kenn amul seen fay ku si ni grand pat sama mag yi jigéen sama jawlu mag yi ñoom màgget daya maa ngi sant ñëpp di leen woo si combat ku si mel ni maam xale yi Teedu Njaay seen siir alxuraan maa ngi koy woo si combat bi jërëjëf sant nañ la